ceeb da cher de yàlla baax na yàlla baax na ceeb bi cher na diwlin bi cher na yàlla baax na ah jogo yàlla <laughs> barki alxuraan karim depuis démb dama feebar depuis démb dama feebar <laughs> depuis démb dama feebar man suñ waxee waxal dara la laay wax man suñ waxee waxal dara lu may wax lan suñ man nee awa ba ma ne ma ba ma ne naam ñu ne ma parle speak waxal lu may wax lan lan c'est que bu soft est xam nga ne mooy gàcce bu soft xawma dama war a reetaan xawma dama war a jooy xawma lan laa war a def mais nangul naa ko ah nangul naa ko parce que yàlla mooy joxe nguura ah. yàlla mooy xool ku ko saf ku ko neex mu jël nguur jox la ko yéen ma gën a xam mais daal kaa bi metti na ma torop si kanam yàlla depuis démb na law ma depuis démb j'ai pas dormi yàlla waroo ma def lii yàlla man xajuma ci gàjje yàlla man dama gaaw a rus dama gaaw am gàcce barki yàlla yàlla man defuma la lu tax nga maa fayee lii xam naa ne instant yi mën nga nekk ba instant bii di ñu seetlu de ma loolu à tout moment mën na nekk mais dëgg yàlla waroo ma woon fayee lii parce que jiwuma la loolu dëgg yàlla damay julli. damay woor damay génne azaka damay natt mbuurum koor lu ma soxla dama la koy ñaan lii moom waroon ma ko woon def xale yi di ma yàll yàllee nag nice xale yi di ma yàll yàllee di njeeru takk suba ba tey aw ma courage sax jël sam téye sama téléphone ndax soft gàcce rusuma nag parce que jogo dafa jël réew mi parce que jëlagu ko ba léegi jëlagu ko de parce que résultat génnagul mais nag metti na metti na ba si kanamu yàlla nag ku ne mettiwul danga soxor ku ne mettiwul danga yëgul li ma yëg ku ne mettiwul danga xamul li ma xam mais yéen luy seen problème sénégalais sénégalais yi luy seen problème man xajuma ci gàcce man maa xajul ci gàcce gàcce rek laa ragal c'est la première fois ma am gàcce sama àdduna parce que alxuraan karim c'est la première fois de vie 22 ans de carrière c'est la 23 ans de carrière c'est la première fois man ma àngu gàcce gu mel nii c'est la première fois man mosuma am gàcce parce que gaynde laa lu ñëw dama koy dékku mais tey moom tey jii nangu naa ne jàmbaar nee na këlëb ci suuf man tey man nangu naa lool mais nag gis nga lu waay rendi ci sa loxo lay naaj jël ngeen nag walla jëloo leen man loolu leeruma leeruma de parce que ay résultat final dafa génnagul sama gaay gis nga ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp nous sommes des sénégalais victoire buñ ko amee ça reste entre nous la Sénégal yenn yi li ngeen di def dara jaru ko ci àdduna. Macky Sall waaye tey jeex na tey yàllaay tey mooy xale bu góor nag moo costume cravate nag ak lu nit bañ bañ Ousmane Sonko xam nga ne yàlla tey jii xale bu góor la bañ gi ko Macky Sall bañ ak ñi ko wër boo nee oxo sax finalement da ngeen wax ak sa téléphone sax ak sa jëkkër ah, bu nekk extérieur du ngeen ñemee wax ci. oppose di ngeen mën a ñemee wax ci Ousmane Sonko parce que da nga naan bu ma waxee bu ma waxee ci Ousmane Sonko mën nañu ma jël si ñuy couper suñu internet yi pour ñuy wax suñu famille sax problème li ñu dund fan yi paase ku ne xam ne ni metti na génn say doom yu góor sax da ngay ragal say doom génn parce que da nga naan samay doom tey bu génnee dinañ leen ramas nga préféré say doom duñu jàng nga tëj leen sa biir kër. doo dem marché doo dem boutique doo wax téléphone amoo connexion ñuy dund lu métti jël suñu courant yi jël ko seeral ko ndox boo daan fay deux mille francs dem nañ ba Sénégalais yi ku daan fay deux mille di fay ndox soixante mille imagine toi deux mille ba soixante mille. dafa boo daan fay vingt mille dem nañ dem nañ ba courant barki Serigne Touba li ma lay wax ni lu am la courant da nga daan fay facture quarante mille. ñun dañ lay fay quarante mille jékki-jékki ñu andi ñu facture cent cinq mille francs xoolal intervalle boobu awush awush jën bu baax baa doola mënatu koo lekk jën waxuma la ndawal de jën bu baax baa doola mënatu koo lekk nañu waxante dëgg sénégalais yi ñi faat ci maki Sall sax xam nañ ne ñun dañoo soxla changement pour ñu dundaat nag leen gis nga tey jii jomaay mi toog tey yàlla na ko yàlla taxaw ko Ousmane Sonko ba lépp lu metti woon ci xolu nit ñi yàlla na leen ci yàlla suturaal may leen may leen nag kàttan gu ñu jàppale Sénégalais yi jeunes yi liggéey te ñu teg lom qu'il faut à la place kil faut parce que jël benn awus koo xamante ne jàngul amul diplôme nga teg ko ci place boo xamante ne am nañ koo xam ne mi ngi licence am toog wala am licence di jaay gerte baa nga am licence di jaay akara ñi jël sa place jox ko place koo xamante ne amul sax amul sax brevet c'est pas normal te loolu moo fi bari xale yi dañoo jàng jàng jàng ñi jàng amuñu liggéey yowus na sa papa du politique rek ñu jël ñu jël place place aw mais nga xamante ne am na licence jox la yow mi nga xamante ne certificat sax amoo ko ah xale yu góor yi ñeme wu ñoo takk jabar même jigéen ñi sax li ñuy laaj xale yi amatuñu ko xale yu góor yi parce que liggéeyuñu liggéeyuñu comme nag sa président Amadou Ba am na courage nangu ne wax dëgg yàlla fa wax dëgg fa neex yàlla bëre moom dimanche bu jot dina am ku daan baañu daan la te démba dañ ko daan jël bu rëy rëy rëy jël boo xam ne kenn mënu koo naataable man balaa maa ndagu xam naa ne gañe nañ ko ndax résultat yi njëkk a génn laa xam ne wax dëgg yàlla day jàll comme moom nag jël na téléphone am woo Jomaay ko ah sama rakk maa ngi lay féliciter nag doxalal maa ngi ñëw léegi génn def conférence de presse jël na Jomaay ci suuf ba féliciter ko yow ma ne nga siggi ivoirien bi eh siggi tey nag ni nga solo neex ma yaa kuy téen ji <laughs> xaaral ma reetaan loola <laughs> sëggul xol ma yow bu rafet bi <laughs> nga sëgg bi def sa bu noir def sa fii fii sa bopp bu noir wala sa bopp bi day metti ba tey wéragu an ivoirien bi nu jug jox la garab waaye ivoirien la venez donner ma fille des médicaments elle a mal du gàcce wallaahi du gàcce élection la référendum la oui ou non les sénégalais ont préféré oui te wii boobu yàlla nañ fi yàlla na doon suñu sutura yàlla na doon xale yëpp yàlla nañu liggéey yàlla na dund gi wàññeeku yàlla na ni mu seddee nii ni ni maanaam ni ndamam li seddee yàlla na ko mandaawam bi yëpp seddee xale yëpp am liggéey Sénégal nekku dëkku naataange. am nañu zircon ñaar dong. après ñëpp ñaar rek non non mën na attention bu defee cinq ans élection day amaat bu defee cinq ans élection day amaat te bu defee cinq ans élection bu amaatee mën na toog mën na génn yàlla rek moo xam li am suba ku wax ñaari mandat na ci yàlla defal parce que ku ñaanal jomaay fay Sénégal nga ñaanal parce que moom bu liggéeyee liggéey baax sénégalais yi liggéey Sénégal ñun ñëpp ñoo ciy bénéficié wu ndax lu mu bon bon aw sa famille yi ngi Sénégal donc bu Sénégal naatee ñun ñëpp la naatal yàlla na sedd guy démb ni mu seddee Sénégal bay taw yàlla na ndamam li seddee noonu ñëpp avancé wu ci gis ci seen bopp jeunes yi toog Sénégal ñu xàccandoo dóorandoo ku nekk ñu jox la place bi nga moom Sénégal am jàmm parce que ñëpp loolu la ñu bëgg parce que Sénégal dëkku jàmm la ñaata dëkk Afrique ñooy am élection muy am ay guerre di am ay lii ñun dañuy ruubee wante rek léeg léegi nit dugg fi xas la yow itam nga xas ko saaga ko mais yàlla xam ne ne boo xaree xolam yéenawul yéenawul a musiba dal la Sénégal benn bopp la ñun rek ñoo nekk fi Afrique dëkk yoo xamante ne xamuñu guerre dañuy ruube wante li yëpp li gis TikTok bi ay ruube wante la Amadou Ba di ko solal ay kii jël Ousmane Sonko di ko solal ay perruque ruube wante la mais au fond de ñun kenn ku nekk xam nga ne yéenewuloo sa mboroom lu ñaaw ñun ñoo ñun ñoo gañee siggi sama doom ji borom teen bu rafet borom sacré yàlla bi boroom jëkkëru ivoirienne bi nga taxaw nag siggi dëggal sa bopp nag ah daa dañuy souhaité nag ñu liggéey ci jàmm daal di doxal. aca bon courage. merci merci